di julli ci mawlaana rasulillah di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla yokk mbëggeelu wàññi ko tuuti yàlla ñu yàlla yokk mbëggeelu yonentu yàlla Muhammad yàlla ñu yàlla yokk mbëggeelu Cheikh Ahmed Tijani yàlla ñu yàlla yokk mbëggeelu mawlaana Ibrahim Niass ah, ñoo ngi yi teew di Cheikh Mahamadul Kabir a ngi nii ah, di taaw alxalifa bi ah, Cheikh Baye Niass cheikh Mouhamadul Habib dem cheikh Umar dem nga xam ne seen waajur moo ma jox tariqa te moo tarbiyu sama papa ji ne sama papa jàngal na ma waaye ginnaaw gi jàng naa ci ay daara yu bëri eh, lu mel ni daara Seydi jàngal moo ma tarbiyu ginnaaw loolu wër naa ci yeneen daara yi am na loo xam ne jagle Baye Niass la nga jàng ci sa. Eh, sa baay kese loolu tawfiir yàlla may ñoo ngi nuyu sama waajur ku baax yàgg nañ lool Seydi El Hadj Moustapha Ka soo demee këram waxtu wu nekk tudd yàlla ngay dégg macha allah at yama fa dund fàttewuma ko ma woyoon ci moom xasida yàgg na alab ni dem ba salaamun rajulan laqad tawa dahra fi zikrin wa ijlaali mu ne alab ni demba baayam mooy maam demba góor gu baax yàlla na ko yàlla yërëm ma ne yàlla nekk ci doomu demba gi salaamun sama nuyu neemahu rajulan est-ce que koo koy góor ndax laqad tawa dahra fi zikrin wa ijlaali jamono bi yëpp def ko lem ci tudd yàlla fajar su la fa fekkee kenn du nelaw mag ndaw jigéen góor ñëpp ñooy tudd yàlla li may wax ni xam naa Baye juuf su ko déggee dina ko déggal ndax dund nañ foofu ay jamono dañuy wax jotaay gi euh, lañ lañ ci bëggoon am nañ ko mooy mu nekk jotaayu xam-xam Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass xam ngeen jotaay gum toog rek dana nekk jotaayu xam-xam ñi nga xam ne arab la bànneexoo dana leen jox seen cër ñi nga xam ne tamit mooy olof bi la ñuy bànneexoo leen jox seen seen cër euh, te jotaay goo toog te yokkuwoo ci xam-xam jotaay googu pertement la lu ne rek xam-xam gee ci am solo moo tax alxuraan ne yonent bi la ngay mag la ngay am xam-xam ak la ngay am madad ak tajalliyaat ci yàlla waqul rabbi zidni ilman foo toll rek neel yàlla yokk ma ci xam-xam yonent bi saa yàlla waxu ko yokk ma ci dara waxal ne yow yàlla yokk ma ci dara yàlla waxu ko waxal ne yow yàlla yokk ma ci dara lu dul ci xam-xam xam-xam rek moo tax yonent bi saa sallam nee ne laa baarakallahu fi yawmin lam azdad fihi ilman laa baarakallaahu yàlla bu yàlla def barke fii yawmin ci journée boo xam ne lam asdad fihi ilman yokkuma ci xam-xam yaa yonent bi moo koy wax mu ne bés bu yàlla sàkk te yokkuma ci xam-xam yàlla bu di yàlla def barke ci bés boobu te kooku mooy yonent yàlla muhammad ñëpp moo leen raw aalamu hmm? man asnada anhu ruwaatu wal hukamaau Busayri nee na jàngul annabiyul ummiyu aalamu man asnada anhu ruwaatu wal hukamaau waaye moo gën a xam képp koo xam ne sage yi wala ruwaat yi ñay riwaaye xam-xam ñoo ngi jëlee ci yow yonent yàlla Muhammad moo la gën a xam ak loolu yëpp mu ne bés bu boo xam ne euh, jant bi soon te yokkuma ci bés boobu xam-xam yàlla bu yàlla def barke ci bés boobu alquran likut lan moo ko indi wa laqad ji'naahum bi kitaabin fassalnaahu ala ilmin alquran ne man maa leen indi téere goo xam ne fassalnaahu dama ko teqali ala ilmin ci xam-xam qissa yi nekk ci alquran te alquran daanaka soo ci dindee qissa yi li ciy des du bëri alquran def na fa la naqussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna xaibin alquran ne bés pencum yàlla danaa leen nettali li xewoon yépp bi ilmin ci xam mbir mi xam-xam la barku Oustaz Barham Diop nee ne am na ñu déggoon ñu mbir mi du xam-xam mu ne leen déet mbir mi xam-xam la bàyyi sax dafa ñëw dégg ñi ñi di wax suñ la laajee laaj nga ne xaw ma ñu ne xaw ma gi genn wàlla xam-xam la ala adri nisful ilmi baay bi wax ji yeggee ci moom mu ne leen déet xaw ma du musa nekk xam-xam xaw ma du musa nekk xam-xam xam-xam moom xam-xam la xaw ma réer la waaye xaw ma di nekk genn walla xam-xam déedéet waaye nag dana am fu mu rafetee ñu laaj loo xamul nga ne xamoo loolu dana la xam-xam parce que su xamee ne xamoo xëy na dana la xamal moom su xamee ne xamoo te moom xam na dana la xamal parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kam bila adri ajaba al mustafa hatta ata al wa illa waqafa woykat bi den wa kam bila adri ajabal Moustapha ñaata yoon la yonent bi tontu bila adri ñu ñëw benn xew ñu laaj yonent bi mu ne xaw ma ci dara xatta atal wax yi ba wax yi wàcc yonent bi daal di tontu wa illaa waqafa ba ñu ne soo toogee ku la ëpp xam-xam suñ la laajee neel xaw ma yonent bi saa sallam daf daan laaj saaba yi xam nañ sax waaye ñu ne allahu wa rasuluhu aalam yàlla ak yonent bi ñoo gën a xam yonent bi toog nag jaabir ibnu abdillah mu ne jaabir a taarifu awala ma xalaqa allah est ce que xam nga li yàlla njëkk a sàkk jaabir ne ko allahu wa rasuluhu alam yàllaa gën yàllaa yonent bi ñoo gën a xam mu ne awwalu ma xalaqa allahu nuuru nabiyika yaa jaabir li yàlla njëkk a sàkk mooy sa leeru ko yonent bi kon xaw ma du xam-xam waaye soo ko waxee mën na la jural xam-xam mhm. ndax nit ki su xamul xamul te xamul ne xam su euh, xamul te xam na ne xamul loolu occasion la pour ñu xamam waaye xam nga liy problème bi mooy xamoo te xamoo ne xamoo loolu musiba la mu ne wal mar'u yajhalu summa yajhalu annahu zul jahli fi asra dalali wa ma fudi borom daal yi ali ibni masudin al yusi mu ne wal mar'u nit yajhalu dana réer summa yajhalu mu réer annahu zul jahli ne moom borom réerange la mu réer réere ne moom daa réer maanaam xamul te xamul ne xamul foofu lay wérkat bi di wax wa man wa man dara waqad dara bi an dara fa zaaka daarin fasaluhu ma dara waaye wa gayru daarin wax wa gayru daari fa daarihi fii daarihi yaa daari mu ne man dara képp koo xam ne xam na man dara te waxat dara bi am dara te moom xam na ne xam na soo xamee yàlla wërsëgal la nga xam ne yow xam nga ne fasaaka daarin borom xam-xam a ngi noonu jàpp leen ko fasaluuhu ma fasaluuhu laaj leen ko ci lam xam waaye mu ne beneen bi nii ni mu gënee am ni mu màggee mooy ki xam te xam ne xam na ni mu màggee mooy keneen ki noonu la suufee mooy wa xayru daarin wax wa xayru daari ku xamul te xamul ne xamul mu ne waaxul ba nga yegg ci këram fa daari jàngal ko fii daari yi ci biir këram yaa daari yow mi xam parce que soo ko dimbalewul day alaku mooy waajaa ngi ci pax yaakaar ne moo ngi ci montagne wa man tazanna fil wihaadi bi annahu fawqa al masaadi fa zaaka jidd mu raxidi wa man képp ko yaakaar fil mas fil masaadi wa man tazanna fil wihaadi koo xam ne moo ngi ci pax yi mu yaakaar bi annahu fawqa al masaadi moo nga ca kaw montagne bi fa zaaka jidd mu raxidi kooku day caaxaan xam nga yonent bi saa sallam nee nañ hadis bi ñoo ngi koy ñoo ngi koy askanale ci yonent bi waaye waxu Seydina Ali ibn Abi Talib xikma la nit ñi ñeent lañ koo xam ne xamul te xam na ne xamul kii moom neex naa dimbale ndax xamul waaye xam na ne xamul rajulun laa yadri wa yadri annahu laa yadri fa zalika al jaahilu fa allimuhu mu ne kooku dafa réer xamal leen ko waaye am na koo xam ne <clears throat> rajulun euh, yadri wala yadri annahu yadri xam na waaye xamul ne xam na borom xam-xam la waaye xamul ne borom xam-xam la mu ne fa zalikal gaafilu dafa sàggan fa nabbihu yee leen ko ngeen ne eh sëñ bi da ngaa xam. yeneen ñaari nag mooy yi ma waxoon sànq mooy ki xamul te xamul ne xamul ak ki xam te xam na ne xam na kon yont yàlla moom xam mbir moo gis rek ci kaw suuf muy dox xam-xam bee ci gën am solo tegu ci lan alal gi alal suy am solo mooy suñ ko distribuer ci mbiru yàlla. moo tax woykat bi neen bil ilmi wal maali yabni naasu mulkahumu lam yubna mulkun ala jahlin wa iqlaani ci xam-xam ak alal lay nit ñi di tabax seeni nguur adduna mënul développé te xam-xam ak alal jiituwul kon euh, liñ doon ut macha allah pour jotaay gi yàlla def ko mu nekk jotaayu xam-xam am nañ ko te jotaay yu mel nii day faj xol ndax ya ñuy lim te ñuy faj xolu doomu aadama limoon nañ ko góor yàlla limoon nañ ko ba mu nekk juróom ñu ne dawaa u qalbika xamsun inda qaswatihi fa dum alayha tafuz bil xayri wa zafari xalaa u batnin wa qur'aanun tadabburuhu kaza tadarru baakin saa'ata saxari kaza qiyaamuka junha leyli awsatahu wa an tujaalisa ahlal xayri wal xadari nee ne yii faj xol juróom lañ bi ci njëkk mooy na faral di xiif gis nga xiif day Euh, euh, xeex ak sa bànneexu bakkan ba sa bànneexu bakkan du la noot moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee ne yéen yéen euh, bi xale yi ma yaa ma'shara shabab man istataa minkumul baa'ata falyatazawwaj képp ku am kattan pour sëy sëyal ku mënul am kattan pour sëy na ngay woor koor gi mooy xiif bi daf lay dimbale sooy xeex ak sa bànneexu bakkan kon moo taxoon nga gis góor yàlla yi ñu tànnoon xiif bari na ci ñoom ñi ñu nettali yaa ni macha allah ci yonent bi d'abord balaa dara sax xiif gi ci yonent bi la tàmbali yonent bi daan na xiif ba su jógee pour julli guddi biir bi buti di yëngatumu mu daal di miir du mën a julli mu jël lan kaala gi takk ci ay doj takk ci biir bi ngir biir bi doj yi taf mana deretu biir deru biir bi ci yaram wi pour mu mën a jaamu yàlla wa shadda min saxabin ahshaahu wa tawa taxta alhijarati kashfan mutrafal adami Buxaari nettali na ko yonent bi saa moom nga xool adduna nekkati yoo loo ci gis rek bu mu la jaaxal su nekkee ne ki gën a màgg ci li yàlla sàkk mooy jóg pour jaamu yàlla miir ngir xiif te am na fu xaj suure lekk ba suur am na fu mbaam suure suuree mbaam lekk ba suur fekk waliyu yàlla wala yonent yàllaa ngi toog di xiif moo tax woykat bi ne ne eh, adduna daal law ka law kaanati dunia tazunu inda allahi janaha baudatin lama naara alkaafiru minha charbata mayin hadisu yonent bi mu ne adduna su nekkoon ne day peese ci yàlla lu toll ni mbëggu yoo konoon yéeféer du ci am benn guuxu ndox waaye adduna firiwul dara ci yàlla hmm? ndax lan waliyu yàlla wala yonent yàlla dina xiif xoolal Seydina Umar ibnul Xattaab da toog ñi toog ci wetam dégg biir bi ni muy jooye ngir xiif biir bi di jooy ngir xiif te Seydina Omar booba moo jor moo yor maanaam xilaafa islamiya soo xaajee adduna bi ñeenti xaaj am ñu ne am ñu ne déedéet sax soo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj baa ngi woon ci loxo Seydina Omar ibnul Xattaab ndax fi a wataat xuyulul muslimina arda parisa maanaam jullit ñi seen fas yi dëgg nañ réewu Paris ci xilaafa Seydina Omar ibnul Xattaab kooku mooy toog adduna bi yëpp nekk ci loxoom biir bi mooy wax ak biir bi ne sawiti aw la tusawiti falan tazuqi laxman xatta tashbaa atfaalul muslimin sama biir jooyan wala nga ñàkk jooya ci yem waaye doo fi lekk benn dogu yàpp lu dul doomu jullit ñi lekk ba suur doomu jullit ñi lekk ba suur nga doog a mën a lekk Seydina Umar ibnul Xattaab moo daan moo daan wax ni mais li ci gën a yéeme mooy yonent bi saa sallam xëy na benn guddi benn guddi mënul nelaw ngir xiif mhm. euh, euh, nan la def dafa génn pour wër-wërlu pour xool ndax dana am néeg bu mu gis buy tàkk mu dem xool ndax dese nañ reer yem ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy doxantu dajeeg Seydina Aboubacar suñ la ko nettalee da nga yaakaar ne théâtre la waaw da nga yaakaar ne la fekkee noonu la demee mu mu ne Abu Aboubacar euh, lan moo lan moo la tere ne la mu ne ko xiif may wër wëraalu yonent bi ne ne xiif googu mooy moo ma yëkkati xiif googu moo ma yëkkati ñiy wër ñoom ñaar te xam nga ñaar ñi ñan la annabi wa siddiqu ki yàlla yónni nga xam ne wax yi ak imdaadaat yi maanaam buum jokkoo diggante yàlla ak mbindeef mi mooy moom mooy barzax baynal xaqi wal xalqi kooku mooy yonent yàlla muhammad mi nga xam ne law lam yakun bayna al awalimi maabaran lam tazharil awsaafu wal asmaau su nekkul woon pont diggante yàlla ak bindeef mi mooy meloog yàlla yi ak tur yàlla yi di feeñ yonent yàlla muhammad saa sallam moom nga xam ne mooy alxayr mooy buum bi jaar diggante yàllaak ak mbindeef mi anta baabul ilaahi ay yumri in waafaahu min gayrika laa yadxulu ku màgg kooku nga xam ne dafa màgg ba yàlla ne ko wa kaana fadlullahi alayka aziman man sama ngeneel wallaay dafa màgg ci yow kooku mooy toog manul nelaw ngir xiif kii siddiq la maa taxta qubbati samaai baada al anbiyaai afdalu min abi bakrin ron asamaan amu ci ko màgg ba yegg seydina abou bakrin baada al su yonent ci passé kooku mënul nelaw ngir xiif ñuy wër wëraalu ba dajee kan al Faaruq Seydina Umar ibnul Xattaab lan ngay dox Umar damaa xiif aw Bakri ni ko xiif googu moom ma yëkkati man ak yoon ci yàlla Muhammad Faaruq mooy ki nga xam ne mooy texali diggante dëgg euh, neen ba nga xam ne moom Faaruq yonent bi neen na isa salaka umaru fajjan salaka cheytaanu fajjan xayra fajji cheytaan yi su naroon dugg mbedd rek Seydina mu mu la gis gi naa Omar day bàyyi mbedd boobu boobu moom dootu ci duggaat ngir ragal Seydina Omar ibnul Xattaab ndax ni nekkee woon nitu dëgg Ousmane ibnu Affan nee ne bi Seydina Omar génnee àdduna moom dafa gént moom Ousmane Seydina Ousmane mu gént malaaka yi ñëw pour laaj ko man rabbu ko kuy sa borom mais malaaka yi balaa ñoo laaj dañoo yegg si rek mu ne leen man rabbukuma yéen ñaar ñii kuy seen borom man rabbukuma Omar ay wax ak ñoom. nga xam ne moom faalewul dara dara yëngalu ko parce que ngëm gi fi mu toll imaan bi ak ragal yàlla gi yaa ngi dégg ak kersa gi ak euh, xam-xam gi xam nga yonent bi def ne al imaanu uriyaan ngëm yàlla daa rafle amul yére waaw ñu ne la lan mooy yéreem mu ne libaasu taqwa mooy ragal yàlla mooy yére gi ñu ne luy taaram mu ne wa zinatuhu alxayaa la koy taaral mooy kersa ñu ne waaw mu ne nag libaasu al al ilmu maanaam xam-xam nag mooy mooy yëre gi nga xam ne moom mooy moom mooy euh, sol sol euh, sol solu ngëm te Seydina Omar suñuy wax ngëm Seydina Omar la ñuy junj Seydina Omar ibnul Xattaab ci biir li ko Ousmane gént ci biir xabri bi te gént ku tal ni Ousmane loolu dëgg la xam nga Seydina Ousmane am na ay wëlu yàlla yoo xam ne ñoo ngi seen bàmmeel la fay xew yàlla nga koy won ay góor yàlla ci kaw suuf euh, maarufunil karxi maarufunil karxi ku jàng histoire Euh, nan la silsila bi jëlee ko ci Seydina Ali dem ba ci Xasanul Basri dem ba ci euh, euh, Habibul Ajami dem ba ci maaruful karxi da nga xam ne maaruful karxi benn ngand la benn wëlu yàlla benn góoru yàlla la maaruful karxi moo tarbiyu sari yu saxti sari yu saxti moo tarbiyu limaamul junaydi maaruful karxi bi mu génnee àdduna maaruf la tudd maaruf mooy kuñ maaruf mooy kuñ xam maaruf mooy luñ xam si arab mën nga wax maaruf mooy luñ xam mën nga wax maaruf mooy kuñ xam dafa génn àdduna benn taalibeem gént ko ne ko maaruf Eh, ba nga génne àdduna lan moo xew foofu sa diggante ak sa borom mu ne man daal dama yegg ci bàmmeel bi rek ñaari malaaka ñu mooy mun ka rek nakiir malaaka ñu ñàng yooyu nga xam ne suñuy wax ak yow seen gémmeñ ñi day génnee safara waaw ah, seen gémmeñ di génne safara ngir ngir jalaal gi am mu ne malaaka yi yegg si commencé eh, eh, di ma laaj man anta man rabbuka xam dañoo tàmbali man rabbuka xam nga lan la mu ne maaruf man rabbuka kuy sa borom mu ne maaruf kuñ xam la hmm. ñu man nabiyuka kuy sa yonente mu ne xam la ñu ne ko ah maa kitaabuka ban mooy sa téere mu ne maaruf téere buñ xam la maaruf ñu taxaw di xoole yàlla ne leen hada abdi maaruf fatrukuhu fa innahu maaruf hada abdi kii sama jaam la maaruf fatrukuhu bàyyi leen ko fa innahu moom maarufun dañ koo si sayidi abu yazid bin al bastaami ba mu génne àdduna am na ku ko gént muy mu laaj ko mu ne ko nan nga def ak malaaka yi mu ne dugg rek ñu commencé di ma wax man rabbuka kuy sa borom ma ne leen yéen ca alamul arwaahi yow ma alastu bi rabbikum ba yàlla defee ci awalu te jëlli boobu ruux yi ñoo fi nekk yaram yi nekk buñ fi yàlla sàkkagul sax suñ baay aadama ca alamul arwaahi ca mbindee fag ruux ya fay bàyyi di wax yàlla imaam il mutala mata ajaaba bi balaa lawlaahu daama mushkilan li usmi ma qad yin jëli foofa ba yàlla waxee alastu bi rabbikum est ce que duma seen borom xam ngeen lan laa tontoon foofu malaaka yi lay waxal mun ko rek nag fi ne foofu nag la nga tontoon foofu xamuñu mu ne leen lijjanti leen foofu foofoo jiitu ba balaa tey nga xam ne nit ki nag soo xamee yàlla dara doo ragal dara ndax da ngaa xam yàlla te yàllaay mbir mi yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabiti fi l hayati dunia yu sabbitullaahu yàlla day saxal yu sabbitullaahu alladina amanu bil qawli saabiti kàddu gu bu sax fil hayaati dunia xalaa u batnin maanaam ngay xiif da lay dimbale sa diggante sa borom ta quraanun tadabburuhu ak sooy jàng alquran di ko settantal alquran afalaa yatadabbaruna alquran noonu kaza tadarru bakin saata sahari nga dem ba côté fajar suñ heure bii nii ngay jàmm yàlla di toroxtalu di jooy ndax yonent bi saa sallam nee na képp ku wéet ak yàlla rajulun zakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu bi dumu maanaam nga xalaat yàlla ba sa ronkoñ sotteeku mu ne yow yàlla dana keral ron keru ron keru lalam gu tedd gi bés ba nga xam ne ker amul lu dul keru yàlla gi zilluhu llahu taxta zilli arshi yawma la zilla illa zillu waaye bokk na ci yi nga xam ne dañuy saafara kada qiyaamuka junha leyl nga toog maanaam guddi gi lëndëm ñëpp di nelew yow nga teppi sa yaram ci matelas gu nooy gi nga bokk ci ñooñu di yàlla wax afa eh, kaanu qalilan mina layli maa yahjaun maanaam daawuñu woon nelew guddi nga bokk ci ñooña di waykat bi di wax kaanu isa leylu arxa sitra za xalakin qaamu siraan li ihyaa iddujunnati yansawna leyla wa soda fi qiyaamihimu mustaanisina bi azkarin wa ayaati gaa yi de kaanu isa leylu arxa su guddi gi daan guddi hmm? za xalakin lëndëm lool qaamu siraan ñu jóg ci lu gaaw li ihya iddu junnaati ngir dundalaat guddi yi mooy lëndëm gi te suñuy déeyoog yàlla ci guddi gi yan saw na Leyla wa Soda dañuy fàtte Leyla ak Soda am na ñoo xam ne seen guddi gi yëpp dañ koy passé ci ay message diggante Leyla ak Soda ak Maya waaye góor yàlla yi mu ne suñ taxawee guddi yan saw na dañuy fàtte Leyla wa Soda fi qiyaam fañ taxaw dañuy fàtte Leyla fàtte Soda fii qiyaam mustaanisiina bi azkaarin wa ayat ñoo ngi wéttali ko ay zikar ak ay aaya alxuraan ak ay jàng alxuraan moo tax waxtu waxtu am solo mooy guddi ndax sax Cheikhu Tidiane suñ sëriñ def na yow Tidiane bi del faral di jóg guddi di jaamu yàlla jaamu yàlla guddi nag sooy jàng say darsu xam ci jaamu yàlla guddi la bokk. sooy jàng alxuraan si jaamu yàlla guddi sooy jàngale si jaamu yàlla bokk sooy wirdu saatul faati surtout ma saatul faati na dara gënu koo baax guddi eh, bàyyi ñes def ne sama taalibe bi loo ñàkk a def salaatul faati guddi defal cinq cent juróomi téeméer salaatul faati waaye mag ñi moom def leen daan sas douze mille salaatul faati ndax Cheikhu Tijaani def ne mooy muqaddamam yu mag yi def leen a santoon dix mille salaatul faati maanaam fukki junni salaatul faati guddi bàyyi ñes ñëw yokk ci deux mille mooy ñaari junni mu nekk douze mille mag ñi am na ñu ko saxoo xam naa ci kenn cinquante ans juróom fukki at mosul raté benn douze mille saatul faati ci guddi si Abdoulaye Sakho ba ba muy jour lu dul guddi gëm muy génn àdduna dañoo eh, ñëw def wasifa ah, dañoo julli timis def wasifa julli gee yaa ngi dégg de mu def naafilaam daal dugg ci néegam ginnaaw gi la génn àdduna nga ne loolu mayug yàlla la am na ñoo xam ne duñ ko bàyyi mukk soo mënul bokk ci ñooña nag fexeel ba juróomi téeméeri nga koy def par guddi julli ci yonent yàlla Muhammad saa sallam ah nit ñi nag bokkuñu kay julli ci yonent yàlla Muhammad saa sallam te fekk yeggagul yàlla ak kuy julli ci yonent bi te fekk dangaa yegg yàlla ñaari maqaama la yi bokkul ah in qiila zaaka huwa dawau fa qul lahu kuhli sahih xilaafu kuhlil armadi ah eh, nit ki eh, dana jël tusngal di tusngal bëtam ndax bët bi daa feebar daa wànnent daa appalo mu koy tusngal pour mu lan mu wér am na koo xam ne bët yaa ngi ne cocc wér euh, feebaruñ day tusngalu ngir lan ngir bët ngir rafet ngir rafetaay am na ñuy tusngalu pour rafetaay gis nga su nekkee ne da xam yàlla sooy jàng saatul faatee guddi yaa ngi tusngalu ngir rafet ngir yéeg ci maqaama yu ko yi waaye su nekkee ne xamagoo yàlla da ngaa feebar yaa ngi tusngalu pour ne yow da ngaa wànnente da ngaa war a wér mooy xamoo yàlla yaa ngi wër yàlla yàlla daf la war a feeñ daf la war a def te jël lii ngay wér du sonn lool kuy tudd yàlla te xam fu yàlla nekk ak kuy tudd yàlla te xamul yàlla fu mu nekk ñaari tudd yooyu du bokk ku tudd yàlla te xam yàlla ak ku tudd yàlla te xamul yàlla bu benn tar tarbiyu li tax li tax mu am solo da ngay daf lay yóbbu ba sooy jaamu yàlla yëg bànneexu jaamu yàlla gi ndax kii jaamu yàlla te xam yàlla bokkul ak kii jaamu yàlla te xamul yàlla Baay Ñas li ko indi mooy mu yóbbu la yow lem àll gi jaar sa digganteeg sa borom yóbbu la ba nga yegg si yàlla ba sooy jaamu yàlla nga yëg bànneexu jaamu yàlla sa xol bi mujj nekkaat ni màkka màkka yàlla ne ne tuj ba ilayhi samaratu kulli shay'in maanaam soo demee fruit bu nekk danga ko fa fekk sa xol bi boobaa soo yeggee yàlla loo gis yàlla def ci def te jëlli soo xoolee nit ñi nga am ci ndollal ci yàlla soo xoolee caméra yi nga am ci ndollal ci yàlla soo xoolee butéelu ndox bi nga am ci ndollal ci yàlla soo xoolee yaa ngi eh, yi mu indi la natija natija googu moo ngi jóge ndollal gu jóge ci yàlla yow li nga moom li nga moom mooy fikra bi mooy xalaat bi nga sànni ko ci géejug yàlla gi yàlla jox la résultat bi loolooy xaatir xaatir mooy résultat gi la yàlla jox yow la nga jël sànni ko ci péeyug yàlla gi pour nga indi résultat loolooy mbaal bi loolu la ñuy tuddi al fikratu fikratu mooy xalaat gi waaye xaatir gi mooy li jóge ci yàlla ñëw ci yow moo tax Baay Ñas nee ne maa minhu ilayka xayru mimma minka ilayhi la jóge ci moom ñëw ci yow moo gën a baax li jóge ci yow dem ci moom ndax yow li jóge ci yow mooy xalaat bi mooy mbaal bi danga nga koo sànni waaye jën yi mbaal bi indaale mooy xaatir bi loolu moo ngi jóge fan moo ngi jóge ci yàlla kon bu boobaa nit ñi dañuy faral di jaawale Baay Ñas def ne tarbiyu bii nii ngeen di def nii أرى شيئا يأتي في المستقبل فكأنه عندي بمنزلة الماضي هو أنه من لم يسلك مسلككم هذا يسلك ويندم am na affaire buy ñëw dafa leer ci man ba mel ni passé na te yegg seegul ñu ne ko lan la mu ne mooy ku tarbiyiwul xam yàlla ku utiwul sëriñ tarbiyu xam yàlla def ko comme ni ngeen ko defee dem ba boppam fàdd ko mu daal di dese yàlla rib anil kulli bi kulli kullika wa anka rib kazaka rib an gayrika wa indaza tasluhu lil muhadara ma al ilahi zahiran wa batina soo ko deful mu ne da ko def rëcc lu taxoon defoo ko nit ñi li leen tardeel mooy xamuñu soo déggee ñuy wax Baye Niass mooy solution bi firiwul dara lu dul Baye Niass moo ñëw pour xamal nit ñi yàlla te nit ñi fekk xamuñu yàlla dañoo tardé ku xamul yàlla dangaa tardé sama sëriñ Cheikh Abdoulaye Dia moo ne woon nit ki su ne bëri taxaw ci kaw suuf nekk mu kallaf point d'interrogation moom ci kanamam mooy ana yàlla su nekkee def laa sàkk bàyyi la nga war koo wëri waroo toog ki la sàkk xamoo fu mu nekk mu ne su nekkee def laa sàkk nekk ak yow nga war a xool fan la féetee ci yow. ci kaw la wala ci suuf biir wala bitti càmmoñ wala ndeyjoor nga xool fan la la yàlla féete kon foofu ngay déparé pour wuti yàlla xam ngeen tarbiyu su mënoon ñàkk kon Seydina Ali du toog ak yonent bi di ko wax dullani ala aqrabi turuqi ila allah dama bëgg nga tegtal ma yoon bi gën a jege pour ma dem ci yàlla yonent bi saa sallam ba ko yàlla di yónni boobu aliyu moo ngi ci loxoom aliyu Seydina rasulullahi moo ko yar yonent yàlla Muhammad moo ko yar aliyu musul sujudal xërëm ali yu musul naan sàngara Seydina Aboubacrin ak li muy màgg-màgg sujudal na lu dul yàlla ndax balaa moo tuub Seydina Aboubacrin ak lu muy màgg-màgg naanoon na sàngara Seydina Omar ibn al noonu sujudal na lu dul yàlla naan na sàngara Seydina Ousmane naka noonu waaye aliyu moom yonent bee ko yar musul sujuudal lu dul yàlla musul naan sàngara te moom mooy jiitu ñëpp ci yàlla ndax nee na sabaqtukumu ilal islaami turran sabiyan ma balagtu awaana xulmi yéen ñëpp maa leen jiitu lislaam boobu moo ngi wax ak muawiyat ibn abi sufyaan xamoo ma man maay kan sabaqtukumu yéen maa leen jiitu ilal islaami turran yéen ñëpp sabiyan boobu xale laa ma balagtu awaana xulmi ama amaguma sax 18 ans kooku màgg ak yonent bi mais su nekkoon ne tarbiya mën naa ñàkk dañuy wax ali comme que yow yonanti bee la yar bi ko yàlla di yónni yéen a nekk te sa xol bi ñaw na xam nga lu bëri soxlawul ngay tarbiyu waaye dafa wéet ak ci yàlla Muhammad mu ne ko dullani ala aqrabi turuqi ila allah foofu mooy point de départ bi ndekete bàyyi li ko indi li gën a am solo ci àdduna moo indi bàyyi ñu sodel la bàyyi ba muy ñëw rek muy wax ak àdduna bi di wax préparé leen li ma indee ngi ñëw faydu faydu baat bi euh, ñetti leetar la rek waaye dafa rëy lim ëmb ci ngëneel kenn mënu koo firi ba àdduna jeex dañuy firi rek ci faydu soo firee ba sonn bàyyi waaye li faydu ëmb kenn mënu koo motal mhm. ndax euh, dafa mel ni gan faydu sax soo ko wëlbatee baat bi dayfu la lay jox day fu mooy gan mais yonent yàlla ibrahim la yàlla joxoon gan ña hal ataaka hadiisu dayfi ibrahim al mukramin alxuraan nga est ce que yow yonent bi yegg na ci yow xibaaru ganuk ibrahima ya day fi Ibrahim alxuraan a ko wax ndekete day fu mooy fay faydu dafa ñëw nekk gan parce que nit ñi bi faydu ñëwee dafa mel dañoo jommi lii moom du fi am lii du fi xewee benn bokk taalibe bu jëlewoon ci man tarbiyu mu ñibbi yaayam ne ko gis nga bu leen ñu sonal fii seen sëriñ moomu Baye Niass mënu fi xam lu sëriñu diw indiwul woon lu sëriñu diw xamul woon mu tudd benn sëriñ ci Sénégal <laughs> xoolal loolu gis nga affaire bi fay faydu dafa ñëw mel ni yaa ngi dégg euh, ñuy sotti jëlee ko ci yàlla jëm ci péegu yàlla gi baraade bi xoolee ko baraade bi rek ca la wala ca deuxième ba ca troisième parce que mbir mi faydu la daliltu bihi yawman wa yawman wa thalithan wa ma huwa illa wa nabiyu bina yasri ila xadarati la abuhu bi sirriha bi sahwin wala amdin li zaydin wala amri ataaya bi lawal ak deuxième bi ak troisième bi yëpp faydu rek lay junj gis nga mbir mi baraade bi suñ sottee ko mooy il faut mu am yëngu-yëngu kaas yi day laalante di yëngu muy laal palaat bi baraade bi di yëngu kopp maanaa li ngay tiyee maanaa kubéer bi day yëngu kaas yi day yëngu sotteeku bi tamit suy sotteeku day am bir wi ala kullin faydu moom fu mu dal rek day am yëngu moo tax bàyyi dafa ñëw rek ne faydu bi ñëw na rek adduna bi yëpp jóg am ñoo xam ne dañoo ñëw ne ah sa dabtu bil faydi min ka amus ataytu walam yunkir li faydika indi dahra gayru saqi wekki ko wekki ko mu ne sa dabtu bil faydi min mu ne dëggal naa sa faydu bi ceexaan yi xam nga ñëw ci yàlla rek am sol ñun dañoo war a sant yàlla bàyyi dafa woote am ñu ne déedéet bàyyi dafa wax ak yàlla ne allaha qultu wa inni qad taxazaba li man qad arafta fa farrik shamlahum wasula man allaha qultu man allah rek laa wax yàlla rek laa wax bàyyi bàyyi nee ne moom waxul dara lu dul yàlla rek problème bi yëpp allaha qultu wa inni qad taxazaba li man qad arafta gaa yu yëpp ne du fi amee te yàlla nag il faut yàlla amee fi léegi nag bàyyi bi mu ne yàlla la am na ñu ko woon ginnaaw am ñu ko woon kanam ñun nañ sant yàlla bi ñu yàlla boolee ci ñu jublu ci Baye Niass la ndax li li am solo mooy ñëw ci yàlla ñëw ci yoonant bi ñëw ci cheikh ak ñëw ci Baye gis nga ñëw ci yàlla rek am solo yonent bi yàlla nee na ko walaw annahum id zalamu anfusahum jaauka su nekkoon ne gars yi suñ defee problème bi gën a rëy ci àdduna suñ tooñee seen bopp seen diggante ak yàlla su nekkoon ne defee loolu ba pare jaauka dañuy ñëw ci yow kon mbir mi baax ndax ñëw bi mooy am solo ñëw gi moo am solo baayam dafa tuub ca fat fu fatxu makka fatxu makka makka yëpp nangu dugg ci lislaam euh, lu dul ñoo xam ne exception la mais aboubacrin baayam li ko yàlla may aboubacrin bu leen fàtte baayam daa dugg ci lislaam yaayam dugg ci lislaam jabaram yëpp dugg ci lislaam wujjam yi wujju jabaram yi dugg ci lislaam doomam yi dugg ci lislaam moom ngëm yàlla gee foor ba lu ko jege yëpp ramassé na leen dugal ci lislaam Cheikhu mante man ko bi xaalatin laa yaxlu minha xaadirun kuy dund xaal te dëggu ci ku la jege rek da ko ci sóob aw bakrin lépp ma dugg ci lislaam baayam jour fatu makka màgget la defa màggeta màggeta màgg ba manul dox aw bakrin ne ko da nga jóg de da nga jóg de ñu ànd dem ba ci yonent bi nga tuub ndax baatu lan ka ñëw ataynaaka xam nga ittiyaan bi ñëw bi moo ci am solo ñëw bi mooy nga ñëw ci sa jëmm ñëw ci sa xol yonent bi def ko gis rek ne ko waa Aboubacry kii mënoon nga ko bàyyi nga wooma ma dem mu tuub mu ne ko laa anta ahaqu an yuta ilayka ya rasulallah yow yaa gën a yelloo ku ne jóg fam nekk ñëw fekki la mu daal di ko tuubal dugal ko ci lislaam ba pare Aboubacry daal di jooy yonent bi ne Aboubacry looy jooy waaye kii kay Aboubacry ku bëri woon lu muy jooy ci yàlla la ci loolu dafa am solo fi ne ni jamono bi pour nga gis nit rek bët yi tooy fekk ko tax yàllaa ko waral wallaahi bu jafe ku fi bëtam yaa ngi dégg dafa gëj a gis ay mandat hmm? dafa ñàkk rek banque rek waaye nit ñi seen bët di war a tooy ngir yàlla min xasyatillah mais Aboubacrin dafa jooy yonent bi ne ko yow looy jooy yow Aboubacrin mu ne ko li may jooy mooy damaa bëggoon tey kii ñëw di tuub du sama baay waaye sa baay Abu Taalibin Abu Taalibin baay yonent bi la Abu Taalib dafa dee ci yéeféer ci kàddu gi gën a siiw am na ñuy dox nag tey di wax dee na ci ngëm yàlla waaye ala kullin abu taalibin dafa dee ci yéeféer yonent bi saai sallam moo ko woo ci yàlla mu ne ah wa daawtani wa araftu annaka naasihun wa laqad sadakta wa kunta sama amina lawla almalaamatu aw hidaaru masabbatin la wajadtani samhan bi zaaka mubina wallahi woo nga ma xam naa ne li nga wax dëgg la nangu naa li nga ma woote loolu moo tax gaa yi ne moom gëm na yàlla wa daawtani wa araftu annaka naasihu mu ne wa laqad sadakta gëm gëm gëm naa ne yow wax nga dëgg wa kunta sama amina yow yaay amin kenn du la fenloo ndax euh, euh, woykat ba Ahmed Shawqi lan la waxoon ba muy wax ak Quraysh mu ne laqabtumuhu amin al qawmi fi sigarin fama al aminu ala qawlin bi muttahami laqabtumuhu yéen a ko wooye woon amin al qawmi yaay amin yaay amin fii sigarin boobu xale la yàlla yoon neegu ko yow yaay ki ñu wóolu doo fen mu ne yàlla yónni ne ma ñu ne ko du dëgg te yéen a ko wooye woon amin mu ne famal aminu ala qawlin bi muttahami koo xam ne yaa ko tuddee amin kay wala dellu di ko tuumaal nag di ko wax ne la ngay wax du dëgg moo tax abu taalibin def na yonent bi wala qad sadaqta wallaay wax nga dëgg yàlla la yónni ndax musul xam ci yonent bi fenn ba kunta sama amina yaay amin ah waaye nag am na problème bu nekk mooy lawlal ma su ma ragal woon ñu yedde ma sama ginnaaw di wax damaa ragal dee moo tax ma dugg ci lislaam aw hisaaru ma sabbatin wala boog ma ragal ñu saaga ma sama ginnaaw la wajate nii samxan bi zaka mubina da nga fekk walaay ma ma ma daal di gëm li nga wax waaw moo tax abu abu taalibin dafa dee ci yéeféer abu bakrin di jooy ne maanaa waditu anna allazi huwa abuka dama bëggoon fekk ki gëm tey du sama baay waaye sa baay la abu taalibin seydina abu bakrin indi baayam baatu baatu ñëw bi laay wax baatu ñëw bi baay wooyee si woote ci yàlla baatu ñëw gi daa am solo cheikhaan def ne saddaqtu bil faydi minka mus ataytu ci benn waxin mus ataytu bi ma ñëwee tu foofu soo koy jàng da nga mus ataytu bi ma ñëwee ngir mu am barke itiyaan ñëw ci euh, lafzu bi am nañu koy jàngee mus atayta depuis bi nga ñëwee rek laa gémm waaye mus ataytu parce que xëy na bàyyi woote na lu yàq cheikhaane ngi toog di xaar di xool waaye li ko ci jaaxaloon mooy diw de kenn gënu ko xam yàlla kenn gënu koo déggu kenn gënu ko nekk doomu waliyu kenn gënu ko nekk waliyu kenn gënu ko nekk xaafis kenn gënu koo nekk aalim waaye loolu yëpp bàyyi na ko topp bàyyi na ko topp nit ku ñuul kii kon am na lu xew toog na di analyser di xalaat waxam wax yi jaar diggante mag wul nax wi lettre yi ak wax yeeg woy yi xejul fii ci mbir mooma ndax wul ndax yi macha allah moo njëkk a ñëw ci naar yi ci bàyyi saabiqu saabiqina wa cheikhu yasqi wa yudirul kuusa tilwal kuusi saabiqu saabiqina moo jiitu ñu jiitu woon ku ñëw ci baay wul ndax yi ci naar yi moo la jiitu wa cheikhu yasqi boobu bàyyi ngi koosi yudirul kuusa muy wëndeel kaas yi ah tilwal kuusi su gaa yi naanee bii rek mu indi beneen wa kuntu li shurbil aasiqina mudira bàyyi ñu sa de la nee ne sàngaraak wala faydoog wala meew ma nga xam ne moom lay góor yàlla di naan man maa doon wëndeel kaas yi di leen ko jox macha allah loolu nag amul nihaaya mais moo tax soo koy firi man nga wax saddaqtu bil faydi minka mus ataytu ba ma ñëwee waaye gis nga alxuraan lim may abdullah ibni ummi maktumin wa amma man jaaka yasa wa amma man jaaka yasa xoola rek yonent bi saa sallam dafa toog ak sanadiidu Quraysh mooy kilifa Quraysh yi di waxtaan ak ñoom pour bëgg leen convaincre ñu dugg ci lislaam moo xam ne ñii suñ duggee ci lislaam mbir mi dana baax benn gumba gu gëm yàlla jóge fa la ñëw pour laaj ci mbiru diineem yonent bi wan ko ginnaaw ndax xam na ne kii gém na yàlla ba pare soxlawul mu yàq temps bi naa na ma bàyyi ma waxtaan ak sanaadidu Quraysin pour convaincre leen mu leen demal kanamam ñagasal ko ci waajooju di wax ak gaa yi yàlla yedd ko ne abasa wa tawalla an jaahul ama xoolal rek yonent bi moo ngi ñagasal kanamam mu koy yaa ngi dégg de muy muy muy dëddu ngir gumba gi ñëw na ci moom yàlla nag ne boobu moo ngi wax ak gumba gi di ko tagg ne wa amma man jaa aka xoolal gumba gi ñëw ci bët yi neexul amma man jaa aka xoolal bàyyil eh, ci laaye bi maanaam xel jaa aka mooy aljayatu almajiu ñëw bi yasaa muy waaxu gis nga yasaa du doxinu ndànk-ndànk fas aw ila zikrillah gis nga comme que yaa ngi dem ci tudd yàlla mooy ba yàlla dafa utiliser baat bi ci fas aw fas aw ila zikrillah ci riwaayatu Abdullah ibn eh, Abdullah ibn Mas'udin ida nuudiya li salaati min yawmil jumati fam daw ila dicrillahi fam daw ba léegi lu gaaw la rek mooy fas taw wa amma man jaaka ku ñëw si yas a moo ngi waaxu te beneen bi wa huwa yaxsha dafa ragal yàlla xoolal yooyu almajiu li rasulillah wa saayu ila rasulillah encore tamit Hmm? alxashir ragal yàlla maqaama yooyu la Abdoulaye bi ummi maktumin boole moo tax mu daan nekk imam su yonent bi génnee Madina mu teg ko fa mu nekk imam mais almaji ñëw ci yonent bi alhaji Mouhamed Zeynab ñas euh, moom ak Baye Niass xam ngeen ñoo bokk benn Baye te boroom xam-xam a ngi noonu borom xam-xam a ngi noonu Baye ñas nee na benn bés ca Taïba Niassène boobu bayal nañ ko toolam ba pare mu ne leen bés pencum yàlla. suñ leen laajee lu tax ngeen nekk taalibe bàyyi Niass lan ngeen di wax Baye laaj loolu Baye moo laaj loolu ñëpp noppi mun leen ngeen ne damaa dañoo gis alhaji Mouhamad Zeynab bu nekk sa taalibe moo tax ñu nekk sa taalibe maanaam li muy firi mooy alhaji Mouhamad Zeynab bu kum nekk sa sa sa taalibe yow moom jar nga jar nga ñu nekk sa taalibe yow moom ku texe nga mooy kat faasa man kaana lahu tilmisa bi bàyyi waxoon ci yaa ngi dégg de ca Zaria yaa ngi dégg de euh, xallaqtu fawqa Zaria wa qultu wajidtu law anni biha qad qiltu kabiruhum habibuna yahuza qad faaza man kaana lahu tilmiza euh, mu ne man maa ngi yéeg ci avion bi tiim Zaria ma ne est-ce que waroon naa yendu fii ci Zaria Zaria benn dëkk la ci Nigéria euh, diggante Abuja ak Kano fa Cheikh Haruna Rachid dëkk doomam a ngi nii muñ ji Haruna Rachid ma bàyyee ko ñaanal lan nga bëgg mu ne ko alxuraan doomam yi macha allah ñëpp mokkal alxuraan bàyyi teg loxoom ci bopp bi ñaanal ko lu mat juróomi téeméeri daara diggante Nigéria ak Ghana benn taalib baay dëjëm bi jour boobu soo fa soo ko gisee amul benn doomu aadama bu musa dee fii ci Sénégal fekk sëriñ la bu mag am dëj gu toll noonu te kale doo taalibe baay la Cheikh Harouna Rachid mun ji cheikhu zamane ngi nii toog imaam la jumaa gu mag foofu ci Abuja nekk borom xam-xam nekk jàngalekat dafa jóge Nigéria démb moom ak Cheikh Souleymane Ibbi pour teew suñ gàmm gi macha allah yónni leen Seydi Alhaji Atiku Alhaji Atiku suñu wëllëre la euh, xaritu sëriñ bi la euh, Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane moo jël sama loxo ak loxoom boole ñu mu sàmm ko lëre ba bi mu yëgee gàmm gi yàlla xam na ne man sax ŋaayiwu ma sama gémmiñ ne ko gàmm gi ñëw na. xëy na am na ay taalibe yu nekk foofu yëgal ko ko mu ne danaa leen daggal billet te période bi billet yi dañoo cher suñ la waxee di jëndee billet yi mu ne leen danaa leen ko daggal pour ngeen dem teewal ma fa moo ngi doon Cheikh ji ak Souleymane Ibbi amma man jaaka ku ñëw ci yow atay naaka alhaaj Mouhamad Zeynab lan la wax baay def ko ne atay naaka yaa qutbal anaami wa gawsahum mu midda rijaalillahi min saybi faydati nuridu tamama al amri fi fi llahi kullihi wa fi lxadrati lkulli min duni muxliti alhaji mahamad zeynab mu ne mu ne yow Baye Niass lay waxal mu ne atay naaka ñëw nañ ci yow atay naaka baatu isiyaan bi laa bëgg xam ngeen xam yaa qutbal anaam yow qutbu mbindeef mi wa xawsahum yow miy ramm mbindeefu yàlla gi mu mit da rijalillaahi yow miy dolli góoru yàlla yi min say bi faydati ci waameeg faydu gi maanaam góoru yàlla yi yëpp sikki amu ci Baye Niass moo leen di dolli ci yàlla loolu nag point la boo xam ne soxla ñu leeral ko te ku am na ku ko wax bàyyi dégg ko waxul dara lii ni benn bàyyi ngi dund alhaji Mouhamad Zeynab wax lii bàyyi ñes am na beneen naar bu jóge Mauritanie dafa jàkkaarloog bàyyi ne ko yaa man amadda jami al kawni muzwujida wala yura madadun min gayrihi abada amdaaduna min siwaaka dahra qad qutiat wa nartaji minkumu bi faydika almadada xatta yaduuma lana waslu alxabibi faqad afna addumuwa wa adna aluzma waljasada وغادر القلب في يعص وفي طمع لكونه اليوم ما يوجد لم يوجد mu ne yow Baye Niass mi dolli mboolem mbindeefuk yàlla gi waa ji li wax daa gën a kowe gën a rëy mu ne mus wujji daa depuis ba yàlla sàkke mbindeef bi ca aadama ba bés pencum yàlla mu ne ku dolli ku ci yàlla baa yàlla dolli naar bee ko wax du man naa ko wax te naar boobu ko wax tuutiwul ci yàlla de moo defal radd u aw awqaati an ahli sunnati wa rachad soo ti tiimee téere bi da xam ne kii waxam jar naa déglu mhm. mooy Mishri moo defar alqanaabilul yadawiya fi dabbi ani suufiya yam defar bari na lool waaye yii rek laa ci cité soo ko xoolee danga xam ne kii déglu ko jar naa bàyyi xel nee sama baay nee ne man naa firi alxuraan ci xaala rajulaani ñaari góor nee nañ mu ne waaye man man naa firi alxuraan ci xaala rajulun benn góor nee na bàyyi ma waxoon man nag mooy Abdullahi waladul Haaj nga xam ne bàyyi nee ne nuróowam amul ci kaw na ki moo ne woon mën na firi alxuraan ci xaala rajulaani ñaari góor nee nañ waaye moom nee mën na firi alxuraan ci xaala rajulun moom doom ji li waral loolu mooy sëriñam bokkul ak sëriñu baayam sëriñam moo raw sëriñu baayam moo tax mu mën a wax lu baayam waxul xam nga oustaz Barham Diop dafa ànd ak baay benn jotaay mu def benn kalima xam ngeen këlima ba oustaz Barham Diop rek afsahil arabi wal ajam ko yàlla sàkk nga weex wala nga ñuul oustaz Ibrahim Mahmoud Diop moo la ëpp fasaxa ci arabiya loolu moom oustaz Ibrahim Diop moom kem la bu yàlla sànn bàyyi sànni ci kaw nu gi pour lancer défi ci àdduna bi ku may tëkku xoolal ma xale bu mel nii nga indil ma ko ci sa xadara ndax am na amul ci xadara ci xadara yi ci àdduna yi sharqan wa garban januban wa shimalan ci àdduna bi xadara bu mën a jur ku mel ni oustaz Ibrahim Diop amul lool moom amul Eh, Baye Niass ba mu toogee Serigne Cheikhul Azhar taalibe Cheikhul Azhar bi di laaj Baye Baye ne barham jëm ajibu ma Cheikhul Azhar bi alama mi Cheikhikal Kawlaxi tontu ko Serigne am Azhar bi gënul xam sa Serigne Kawlax bi su laajee kon yaa ko war a tontu te Oustaz Barham ne ku mu mus a tontu doy lu nga ci tontu. yàllaa ko may xikma may ko xam-xam faqat utiya faslal xitaabi bi xawlillah yàlla feesal dënn bi leer suy wax bàyyi ko wax sax. mu ne bu ëllëgee de ñi ñëpp danañ yéemu ci yow xataa yu qaala innahu barha ba ñëpp ñu ne lii sax bàyyi xam nga euh, oustaz Barham Diop rek war na tax ku gëmul woon bàyyi gëm bàyyi gis oustaz Barham Diop rek rek rek doy na kéemaan ci àdduna pour nga xam bàyyi moo raw àdduna bi mais fan la jàngee ci bàyyi ñes oustaz Barham Diop fan la jàngee ci bàyyi ñes koo xam ne làmmeñ bi yàllaa def mu saf ci arab soo ko dul dégg sax suy wax da ngay bonde doo bëgg sax mu noppi loolu yàlla dexeñ loolu def loolu ci ci làmmiñ même soo déggul arab sax mais suy wax doo bëgg mu noppi kon suñuy xool eh, atay atay naaka alhaaj Mouhamad Zeynab def ne bàyyi mooy dolli góor yàlla te naar bi wax na ko nee ne bàyyi mooy dool dolli mbindeef mi musu wujji daa léegi damay bëgg toujours wax su màggee rëy bu ko gaaw a weddi vérifier te nga xool ki wax wax ji ndax waxu waxkati caaxaan la wala déedéet toujours balaa ngaa weddi wax xoolal ñaari point su nekkee ne kii wax wax ji naka jekk waxkatu caaxaan la day wax ay waxu boo soosóor day wax wax yam tegu ko ci xam-xam su waxee wax bu ko déglu waaye koo xam ne borom xam-xam la waliyu la di doomu waliyu di taalifkati téere te musul wax loo xam ne du dëgg su waxee wax rek damal vérifier kii nee ne bàyyi mooy li mbindeefu yàlla gi bi yàlla sakki àdduna bi ba léegi bul weet di vérifier xool ndax loolu la wala du loolu ndax xam nga léeg-léeg hmm? Euh, Baye Niass def na inna lil inkaari shurutan weddi sax daa am ay condition Cheikh Ahmad Bamba moom gàgganti nañu mu ne kalaamul awliyaa lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum Abdul Wadud moo ko waxoon foofu ca Mauritanie Cheikh Ahmad Bamba nee ne man li ma leen di digal yéen taalibe yi su ngeen déggee wali yàlla wax wax koo xam ne déggu leen ko wax leen li Abdul Wadud waxoon ñu ne ko lan la Abdul Wadud waxoon mu ne Abdul Wadud def ne wax wali yàlla yi di ma ko comprendre ndax ñoom ñooy ñoom man maay man kalaamuhum iza dahaka ya balid faqul kama qala zaki Abdul Wadud kalaamul awliya lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum mu ne su leen su leen su la soo demee ba seen wax jaaxal la waxal li Abdul Wadud waxoon rek waxul ne su leen soo demee ba seen wax jaaxal la weddil sëñ sëñ Tuubaa waxul loolu seen wax su la jaaxale weddi déedéet waxal rek ñoom fa ñuy waxee ak man fa ma toll du benn Cheikh Alhaji Mouhamad Zeynab bu def ne Baye ataynaaka yaa qutbal anaami wa gawsahum mu midda rijaalillahi min saydi faydati bàyyi ne ko lan la mu ne nuriidu tamaamal amri fillahi kulli dañoo bëgg nga motalal ñu suñu mbir yëpp ci yàlla wekk nañ la suñ bopp jox nañ la suñ bopp bàyyee nañ la suñ bopp motalal ñu mbir mi yëpp ci yàlla liñ bëgg yëpp xam nañ ne mën nga ko bàyyi joxe jox nañ la suñ bopp wa fi hadratil kulli xadara yëpp na xadara bu nekk lam laaj pour ñu xam ko fa bàyyi nañ la suñu bopp xamal ñu loolu Mouhamad Ibnul Hasan kenn ku nekk xam na ne borom xam-xam la ci Mauritanie ñi jàngee foofu ci ci daara yi gis nañ taalifam yi gis nañ mawhiba bi mu am ci siir siir bi ila xaysul xilaafatu tutlaqu xaysul maarifu fayduha yatadaffaqu xaysul basairu absarat is ashraqat samsun biha yumha alxijaabu wa yumxaqu waxi gudd wax maanaam xasida ba gudd la mu ne mbir mi daal mooy siir bi yóbbu ma ila siir bi ila xaysul xilaafati tutlaqu pour mbir mi sotti daal il faut ma ñëw ci bàyyi sir bi yóbbu ma ilaa xaysul xilaafatu tutlaqu fa nga xam ne xilaafa ba dañ ko fay joyal xilaafa léeg ñu tënk ko waaye ba mu ñëwee ci bàyyi dañ ko joyal amul bidaaya amul nihaaya xaysul maarifi xaysul maarifu fayduha yatadafaqu yatadafaqu nga xam ne foofa maarifa billahi seen faydu yaa ngi jëñ lii nii eh, ay eh, nuqta ci faayida ñëw ci yàlla wala ñëw ci yonent bi wala ñëw ci Cheikh Tidiane wala ñëw ci Baye suñu wootee gàmmo nag soo bàyyi sa yitte ñëw yow bokk nga ci ñi ñëw ci wala annahum zalamoon som jaauka bi baatu jaauka bi dugg nga ci wala Cheikhu Tidiane woote nga ñëw dugg nga ci baatu jaauka bi yu mel nii jotaay yu mel nii wa antu jaalisa ahlal xayri wal xabari njëriñ yëpp fii la nekk ndax benn baat rek mën nga ko ci déggee mu njëriñ la ci yàlla loo xam ne soo jaamoon junniy at soo jaamoon yàlla junniy at doo ko am surtout maa nga toog ak kilifa yi mel ni ay borom xam-xam xoolal ngi nii lam denc ci xam-xam ana cubbu macha allah ah borom borom macha allah eh, al munazaraat yi ak eh, ñeen oustaz eh, Ahmed Ahmed Ba jilee xaar sayidi oustaz Aliou Sow macha allah ahlu boggee Thierno Abdoulaye Dia ñoo ngi koy nuyu waa Nouakchott waaw waa Mauritanie yëpp daal wul diina ngi ne borom xam-xam la bàyyam xaadi la foofu ci Nouakchott moom mu nekk borom xam-xam in istajabtum al ghurri al mayamini li daawati diini dil aliyaai wa diini ad diinu bi diini maqrunun kama qurinat fii na al muruatu uxtu diini bi diini kooku mooy wul diini moo ngi ne moo ngi toog Cheikh Tidiane wul diini bàyyam nekk borom xam-xam hmm? euh, duñ def dara lu dul man euh, dama bëgg a yemal fii mbir mi li des ci temps bi ñu jox ko borom xam-xam yi nekk fii oustaz Cheikh Mouhamadul Kabir a ngi nii ñu tëjal defal ñu ñaan waaye lamin Kouta a ngi nii oustaz Lamine Kouta damaa bëgg ñu barkeelu ci moom donte cinq minutes la sax su ko mënee yóbbu ba quarante ba ba soixante am na solo mais nañ barkeelu ci moom rek euh, dañoo jokkoo téléphone ma yëgal ko gàmb gi ma ne ko yow nag tey bokk nga ci ndaw ña nga xam ne suñ teewee ci jotaay yu mel ñi da nga war a jël kàddu ndax am na ñoo xam ne seen kaddu xam-xam la te xam-xam rek ay faj tey xolu ndaw te ñëpp dañoo gëlëm kon euh, dama bëgg arrêté fii jox ko moom mu mu sànni ay kàddu nuyu naa Opa Diallo moom ci ginnaaw Alpha Ngaydo oustaz Alpha Ngaydo moom mooy borom Layla Katmiya bi su ngeen gisee at yi yëpp du ma teewee Layla Katmiya kër Thierno Hassane Deme euh, moom ci ci xadara bi la bokk moo koy organisé fële euh, ca Nouakchott ma fay wuutu xadara bi foofu loolu la rek moo Cheikh Oumar Deme mooy borom. borom confirence bu neex ba keroog oustaz Ali Ndaw wax fa wax yu am sol dañoo génn sama soxna Maymuna Taraware mu ne ma kii moom waxam yëpp sayru la waaw waxam yëpp sayru la kii dafa dajale li li mu def dafa jafe Cheikh Oumar Dem nga mbooleem muqaddam yooyu askanu ci Cheikh Hassan Dem ñëpp nga xëcc leen dajale leen ci benn place ci benn ngoon mais loolu yombul de mais moom def na ko keroog. ci ndigalu Thierno Kabir moo nga fa Thierno Kabir mii moo ko samp foofa macha allah fa mu nekk nu mu tudd gàddaay wala jaxaay moo nga fa macha allah di liggéeyal yàlla Cheikh dem yàlla na yàlla yokk ci barke alxuraan. Oustaz Ibrahima Anne waa ji nga xam daa jaay temps ak alalam yëpp yàlla. moom ak Oppa liñ cotisé macha allah ci ci gàmmu gi néew na ko cotisé waaye ñëw ngi gërëm ñëpp di gërëm daa daairatul ula Maulana Cheikh Konte borom xam-xam ak yi nii yàlla boole ñu dëpp lu yàgg moom ak oustaz Abdou Ndaw ku leen gën a tabe amul ñaar ñooñu moom kéemaan lañ ci tabe salaamaaleykum rek daa su ma daan géej ziyaare Baba Lamine oustaz Konte ne ma yow géej nga Baba Lamine de ma ne ko dama amul lu ma fa yóbbu. mu ne ma nañ dem rek mu bukki moom am na jamono ya nit ñi dañoo yéemu woon ci tabeem ba am ku ma woon ne ma xanaa Cheikh Konte daa yore secret cinq mille waaw ndax salaamaaleykum rek cinq mille yi naaw macha allah Cheikh Oustaz Abdou Ndaw su ngeen gisee laajkatu addiya yi ñeme ko di ko sas di ko indil nangam dañoo xam ne luñ ko sas rek def na ci xolam lu raw loolu yàllaay def loolu Zeynul Abidin Maulana Zeynul Abidin eh, kooku moom dañ dañ koy bàyyi yàlla rek waaw ah, ndax kooku mooy eh, njabootu Cheikh Ibrahim nga xam ne ñun eh, ci moom lañ wéeru ci moom lañ jokku nga xam ne fuñ toll rek suba ngoon ñoo ngi nekk moom wàccee boppam ba mën a tolloog ñun su ko neexoon dañ koy yootu duñ ko jot waaw njabootu Baay ah awlaadu Ibrahima kullan nujaba kulluhum fi llahi aalin rutaba wa kulluhum fi l ilmi bahrun zakhira wa kulluhum fi l juudi jawdun ghazura wa kulluhum kal badri fi man nazara wa kulluhum li cheikhi wasfun bahara mooy la askanu ci Cheikh Ibrahim doom yeeg yaa ngi dégg de ak ak ak ak maanaam euh, sët yi kon ala kullin euh, du ma guddal oustaz euh, Lamine Kouta loo ñu jox rek duñ la tënk ci temps duñ la tënk ci thème xoolal rek xoolu shabab yaa ngi nii xam nga góom gi. te yaa ngeeg alcool bi bismillah waaw waaw macha allah ci ndigalu kilifa bi Cerno Kabir bismillah Cheikh Cheikh Moussa euh, al Cerno Alpha euh, Cheikh Moussa Soxna ak Cheikh Tidiane Ahmed Tidiane Thiam ñoo ngi noonu ànd ak euh, Seydi Cheikh Alhaji Abdou Cheikh Alhaji Muntaqa macha allah ma zala mawjudan hatta al ana macha allah bismillah الحمد لله الذي بنوره اهتدى من اهتدى والصلاة والسلام على شجرة الحق ظل الوجود مدده الساري فهذه قصيدة mutawaadiatun qultuha fi xaqi sheykhi wa ustaadi al ustaad Ahmed Ba bacda an makastu iqdan min alzamani la aktubu shicra faqad kuntu aktubu shicra ala sheykhi wa wasilati ila rabbi الشيخ إبراهيم عبد الله صل ومنذ اختفاء بشريته لم أتمكن من كتابة ولا بيت واحد من الشعر إلا أنني في هذه الليلة حاولت أن أقول أبياتا على الأستاذ أحمد به يا ساكنا في القلب يا ابن الأكرم قد زاد فيك تمسكي وتلهفي عش يا لسان الحضرة في علياء عش دائما في عز وتأنق يا ذا المحيا المستنير طلاقة والقمة العليا التي لن تختفي يا صاحب رأي الشديد فخامة والمنطق الرقيق الألطفي فإذا ابتسمت فكل وجه مشرق وإذا نطقت كان قول عاصف فيك المروءة والكياسة والندى طبع وليس تطبعا بتكلف شهدت فضائلك الخلائق والسماء ولها الملائك هللت بتشرف سر للأمام بقوة والثابة تحمي الدين من الغشوم المرجف يا مالكا قلبي بربك دلني كيف العلاج لخافق المتلهف وارحم مريدك في الدجى بزيارة رحماك في قلبي معنى مدنف نسج الهوى شوقا بقلبي قاتلا عجبا له من قاتل ومعنف فلا أحلفن بكل آيات السماء وبحق خالقنا وحق المصحف إن قلت في البحر اقتحم لعبرته دربا إلى لقياك لم أتخلف innal murida ida ahabbaka qalbuhu haanat li ajlika ruuxuhu lam yagari hal yaa tura axdaa binadratikum ila taxqiiqi ma asbu ilayhi fa ashtafi fala anta shamsun in badat anwaaruha caadat buduuru samaa'iha lam tucrafi xayaaka yaa taaju almakaarimu xifda man yaxtaaru linnaasi al-a'immata wa yastafi ad'u llaha bi an yusaddida xutwakum wa yaqiika min sharri l-balaa'i l-muxtafi wa yuskinakum a'la al-jinaani wa kawthara yawma al-xisaabi wa 'inda hawli l-mawqifi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa aalihi wa sahbihi. Maa shaa Allah, mashkuur.